kàddu yu nuyu ak kàddu yu siyaare jëmee ko ci Serigne Abdou Samad Mbacké mu Cheikh Souhaïbou di ko sant bu baax di ko gërëm ci lépp rek loo xam ne ni ñu ko junjee léegi te day mel ne li ngeen ci xam li ngeen ci xamutu ko foofu kon ñu ngi koy yeesalaatu cant ak ngërëm di ko siyaare ci bis bi ci barab bu tëdd bi nga xam ne barabu Serigne ndax dëkk bépp barabu Serigne Touba la mm-hmm. waaye day mel ni jot fii ñu toog dañ ko moomale Serigne Touba ba lu ñu fiy def rek génn Serigne bi mm-hmm. kon loolu ñu koy ndokkeel it bu baax ci xalaat yu rafet yi mu am ba tànn ay boroom xam-xam ngir ñu jàngat loolu lépp ci mubaadaraat yi muy def la bokk mm-hmm. ndax bu sañoon lu baax kenn du ko ci jëkk fi zalika falyatanafasil mutanafisun lu mu gis jàpp ne lu baax la rek da ci jiitu ñëpp mm-hmm. moo tax bi nga xamee ne ak Cheikh Mouhamadou Mountakha ne moo fi Serigne Touba tey yal na suñ borom dolli ak biram ak ko fanam ak kattanam ba mu mottali mboolem naa li ñu am ci liggéey Serigne Touba waxtu ne noonu loo koy defee saa su Serigne bi yëkkatee ay kaddu ngir xam ne mustawa bi sëriñ bi waxe kawe na mun a na seet ñoo xam ne danañ ko mën a wàcce ba mu tollu nit ñi ngir kenn ku ci ne lañ ci war dégg nga dégg nga dégg ko ca ndax alxuraan sax boo gisee ñu wax mu siroo na mooy loolu ndax alxuraan du dugg ci détail day tënk rek sëriñ bi it kàddu yi mu yëkkati démb kàddu yu xóot la yoo xam ne rafiul mustawa la waaye nag ngir nit ñi mën koo dégg loolu la ci Serigne Abdou Samad Mbacké ji jublu ngir mën koo jëriñoo moo tax mu tànnoo ñii mu doon wax loolu ngir ñu jàngat ko ndaa wax sëriñ bi du lu ñuy taaliq taaliq mooy commentaire sami ana waatax naa rek la tudd waaye nit ki la muy dégg war koo jëfe war naa xam lu mu doon bañ jumte bañ ko jaarle kon loolu la ci jublu waaye jiwlu suñuy jàngat ndax wax sëriñ bi kenn du ko jàngat. ndax li ma ko junjoon keroog rek moo doon sëriñ Tuba te sëriñ Tuba moo doon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. te al ulama warasatul anbiya kon wa ma yantiqu anil lépp lu mu wax rek nañ xam ne du waxe ba kan lu gën ci nit ñi la ngir bëgg leen di ku digle kàddu yi démb yi itam mm-hmm. da nga xam ne na mu ko daa defee ci soññ ak fàttali mm-hmm. def na ko te li ëpp solo mooy li suñu asan doon wax léegi wa daara ixlaasin wa shidqin wa wara wa daara sunnatin wa man jeune min bi kon dëkk bi dëkkub daara la loolu ñëpp ko war def fàttaliku rawatina bi ñu ci yëkkatee kàddu yu tëdd yooyu moom ñëpp xam nañ ne fi mu war a tàmbali ak kon li mu ci jublu mooy lu mu xumb xumb xumb na nga xam ne lu ko Serigne Touba sancoon mu nekk daara te loolu Serigne bi ko wax sëncu ma Tuuba lu dul li taallumi wa taalim taallumi ak taalim na ca daara lañ koy def kon ngeen di waxe sëriñ bi waaye du mu indi ci yu am solo ci leeral ñi nga xam ne ñoom lañ jox mission bi ne leen la weesu am njàng la woon kon da ngeen war a toll rek ci waaye ngir fas yéene liggéey kon loolu itam soññ na leen kon la ma waxoon yóbbante yónni woon ne ma wax leen ne leen nañ gën a góorgóorlu te te fet li seenu laxasaay mhm. góorgóor di gën a fet li seenu laxasaay nag mhm. loola mooy lu ñu jëfoon benn fexe bu war gëm ne war nañoo jëf lu ma téeméer mhm. ngir xam ne dëkk bi moo toll foofu te ñu fi dëkk ñëpp it ay taalibe lañ ak njabootoon lañ bu soñoon ñëpp ni ci jàmm kon yàlla def na nag ni mu ko waxee ci wàllu àdduna gi ñoom la jël teg leen ci kanamu nit ñi kon ñoom itam war nañoo xam fi leen siñ bi teg duñ kon wax sëñ bi yëpp mooy soññ nit ñi dëkk ci dëkk bi. Mhm. ngir ñu xam ne dëkk ak Serigne Touba yombut ku am tawfeex dëkk ak Serigne bi. Mhm. nii nga war a mel. ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ teg ci kanamu nit ñi mhm. ñu xam ne buñ la tegee ci kanamu nit ñi daaw na war a mel. na nga war a mel nag la ci jiitu mooy gën a suufe nit ñi. sajidul xaw mi xaadi moom. kon da war a gëm ne yaay yaay ki war a liggéeyal nit ñi. ndax ndax lépp. yëfi sëñ bi waaye sëñ mi xam ne ñëpp mënuñoo agsi ci moom nag mhm. moo tax mu jël leen teg leen ci kanam nit ñi kon ñoom itam nañu gën a diglu nit ñi di mhm. gën a jege nit ñi mhm. di gën a xam seen soxla te li ñu gën a man ci góor góorgóorlu ci ñu def ko ndax loolu lañ leen fi tege loolu lañ leen fi bàyyi ñoom itam war nañu gën a xam mission bi leen sëñ bi waxaat kon buñ buñ yokk buñ tay ngir xam ne bu leen fa àdduna tegoon it looloo lay war asamaan rek ñoom dañoo boole adduna ak alaxira mm-hmm. ndax liggéey lu ñu adduna rek Sëriñ Tuubaa la ñuy liggéeyal mm-hmm. Sëriñ Tuubaa mi ñu liggéeyal nag mm-hmm. kon waruñoo am guddi waruñoo am bëccëg waruñoo xool ne naaj na waruñoo xam xam ne ñu sonn ndax luñ gën gën a yittewoo nit ñi rek loolu la payoog suñu borom di gën a bëri ci la payoog Sëriñ Tuubaa di gën a bëri kon nag a rabbil alamin taalibe yi moom seen digg ak sëñ bi leer na nañ ndax sëriñ Touba leen gënal seen jëmm. Hmm. ndax sëriñ bi daa waxoon ne Touba ku fi sam xel indi saw xel indi kon ñaar yooyu rek fi indi ñu. ñii seenum xel indi leen jël seenum yaakaar ñi yaakaar sëriñ Touba leen gën kon nag sëriñ bi bu soñoon ñëpp am jàmm. ndax euh, gàddaay kat dellu bokku ci. kon sëriñ bu soñoon ñi dëkk ci dëkk bi. yërmaande jëpp gën a wàcc ci ñoom moo tax ci lu ngeen jëg ak lu ngeen jëgut hmm. am na ci loolu du ngeen ko mën a xam waaye saa su xëyee hmm. looloo itteem hmm. nit ñi gën a mën ne ci jàmm ñi ci ci xat-xat nuñ tàgg loolu ci la ngir loolu itam moo ñu fi bàyyi ñun ñëpp ndax Serigne Touba kat taalibe ñoo di njabootam ñun ñëpp sa ay taalibe lañ ndax ku ci génne génn ci taalib yi te taalib yi ku ci génn doo doonte dara loo bokk-bokk ci moom te duggoo ci biir taalib yi doo jariñ ci mbirum Sëriñ Tuubaa kon ñu ñëpp ci biir taalib yi leen dugg yi euh, nag ñoom seen digg ak sëñ bi dañ caa dem ba jeex ndax lañ gën a fonk jox nañ ko sëñ bi te la ci jiitu mooy seen jëmm jox nañ ko Sëriñ Tuubaa de seetluñ ci dara seen alal jox nañ ko sëñ bi kon istara minal mu'minina anfusahum wa amwaalahum kon ñaar yëpp dugg na kon nañ gëm ne daje suñ borom tegoon ci alxuraan bi anna lahumu jannat ñoom nag aj ajjana taxu leen a jóg sëñ bi rek leen tax a jóg waaye nañ xam ne bokk nañ ca leneen ci suñ borom di fayee ci barkeb sëriñ bi mooy ajjana mooy ci jiitu kon ñoom wàcc nañ ndax nit koo xam ne amul jëmmam bu juree doom sax sëñ bi la koy tuddee wala njabootu sëriñ bi boo amee alal lam ci gën a fonk sëñ bi la koy jox lépp lu jàpp ne bëgg sëñ bi mu dakk ko lu mu jàpp ne sëñ bëgg ko kenn du ko ci seen kon ñoom wàcc nañ kon nag dañuy ñaan rek ñu ñëpp ñu maase gën a laxsaay gën a góorgóorlu dooni taalibe bi ndax li sëñ bi wax démb kat kenn génnu ci ñun ñëpp nañ xam ne ay taalibe lañ ñun ñëpp mën nañ xam ne ay dong lañ ndax loolu kat mooy ñu jëriñ ndax sëriñ bi kat noonu la tërali yoon wi kon gën a laxsaay waat gën a góorgóorluwaat góorgóorlu génn la ci jiitu mooy talib yi rawatina ñi nga xam ne mënuñ seen bopp ndax ñoom amuñ kàttanu mën a jot fépp sëriñ Saliou daana wax ne jaboorug sëriñ Tuubaa gi sëriñ bi nee na képp koo xam ne yaa gën a ittewoo taalibe yi di gën a jax taxaw ñoom yaay ëpp cër yaay ëpp cër ci man kon loolu ñun ñëpp war nañ ko jàngal waxtu ne may fàttali Cheikh Abdoul Ahad Mbacké da ku mënoon a jàngale la mm-hmm. waaye loo dégg ci waxam rek da koy def leçon boo xam da nga koy jëriñoo mm-hmm. danaa def léeg-léeg buy bëgg a génn ci mm-hmm. mbooloo mi léeg bu fekkee ñu bari siyaare suñu bu laajee kan ak xam ngeen ni kër yu mag yi baaxoo rek dañuy bëgg a ñu borom daraja yi ak borom alal yi leen bàyyi ñu ci ñëw ko tey mel na ni solo niwuñ fi si Abdoulaye Mbacke neen kan ak kan fa ne bu mu tuddee mooy lan ñooñu ngeen di woyofal ñoo ma gën a ñor. borom ñaar dërëm yi dërëm ngeen di xet di ñoo ma gën a ñor ndax ñooñu positif kese lañ yëkkati. la ilaha illallah kon ñoom dañoo xamoon sëriñ bi ndax xamuñ fa leen Sëriñ Tuubaa di dàkke ak fa mu leen di seetloo. ba xam seen mission matal lañ ko dégg. kon ñoom ñi nga xam ne sëriñ bi waajal na leen ba mënuñoo def njuumte. mënuñoo def lu bëgg-bëgg Sëriñ Tuubaa ndegam ñoom ñoo ko daa wattandiko mm-hmm. asama nit ñi kon loolu lépp lu ñu doon jàngal la mm-hmm. ngir bëgg boo léegi ñu xam fu ñu teg seen tànk kon nag war nañu defaraat suñ bopp di gën a xoolaat ñu tam fu ñu teg suñ bopp mm-hmm. kon la sëriñ bi waxoon Cheikh Mamadou Moussa ak Cheikh Mamadou Fadi mm-hmm. loolu ci lam ñu sëriñ saa bi ko déggee daanaka xaw na loolu li waxoon ko waxoon ne ko seenul jàmm yàlla li ci ëpp ginnaaw li yàlla farataal ci yéen mooy di taqu nit ñi di jaxasoo ñoom kon nañu xam ne lii ci jàmm yàlla Abdou ñu ngi lay sant di la gërëm ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha waaye di la sant di la gërëm ci turu njabootu Sëriñ Tuubaa yi di la sant di la gërëm ci turu taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp ndax lii kat bokk na ci wa jaahidoo fi sabiilihi wa jaahidoo fi sabiilihi lii bokk na ci te mooy di xamal ñi xamul di gindi ñi réer di leen teg yoon ba ñëpp bañ jàdd yoon ndax kat aw nit boo leen yilifee da ngay wax ak ñoom ndax suñu borom bi nga xam ne moo bind ñëpp dara wax ak nit ñi rasulullahi masta dañ ci di wax ak nit ñi hmm. suñu yaakaar te ëllëg di Serigne Touba li muy xat-xat-xat nga xam ne waxtoom lépp dafa sarse hmm. ba lim def sax lenn ci loo tànn dag naa nu mu xaje ci dundum nit hmm. dalay jaaxal waxtu ne daana wax ak nit ñi néew na mu julli takkusaan wala fajar wala ginnaaw gee te da jëlewu nit ñi ci kees sangam wax ak ñoom di leen gindi di leen yee ci ñu xam la war a def